am mbégte lool nag bi ma ñëwee fii tey ànd ak sama doom sama rak Madina Touré ndax man dama dëkk ci commune bi dëkk Mermoz sacré moom mu nekk futur maire de Mermoz Sacré-Cœur ma war a ñëw uy si ko fii ci meeting bii mu organise ñu ñëw ànd ak moom dooleel ko ndax nag bëgg nañ gagné Mermoz Sacré-Cœur bëgg nañ gagné ville de te yaakaar naa ne maak moom bu ñu àndee yàlla danañu dafa loolu li ñu yéene Dakar yéene ko Dakar waaye ah yaakaar naa ne wax nañ ko fu ñu mës dajee rek waxtaan wax nañ ko waa dakaar wax nañ leen ko wax nañ leen li ville de Dakar jot a pour population yi mu bari lool kenn mënu fi toog tey tey la ouverture campagne dañu koy boros rek kenn du fi nekk di ko wax loolu yépp waaye lañu daf ci liggéey a ah, waa Dakar gis nañ ko te la ñu fas yéene mooy lañu ñu commencé woon ci bilan bii ñu war a présenté dañ koy yokk def ko suñu programme te programme boobu nag bi ñu koy liggéey itam dañoo déglu population yi wax nañ leen li ñu fas yéene ñoom wax nañ lu ñu bëgg ñaar yooyu lañuy boole tënk ko pour liggéeyal waa Mermoz Sacré-Cœur waaye itam liggéeyal waa Ndakaaru kon yaakaar naa ne euh, li ñuy waxee sensibilité féminine boobu buñ ko àndee ak suñu càmmeñ yi ñu ànd ak ñoom waxtaan ci liggéey ci yaakaar naa ne waa Ndakaaru duñ ñu mere fii ñu jëm nag le 23 may fàttaliwaat rek xale yi suñu doom yi nañ ci ànd ak teey nañ ci ànd ak yar ak teggin nañ ci ànd ak dem waxtaan ak nit ñi parce que nag Sénégal pays de la teranga pays du dialogue ay waxtaan moo koy doxal te yaakaar naa ne man mii ak Medina ah am nañ dal teey ak yar boo xam ne du ñu manqué mukk de respect suñu population yi parce que nag manqué de respect population yi mooy di leen di dig loo xam ne yow mënuloo ko mu wóor na leen mënuloo ko mais nga wax ko pour ñu fal la déedéet ñun duñu façon nit yooyu ñun dañoo gëm suñu ay population dañoo xam ne nit ñi sonn nañ dañoo xam ne nit ñi bëgg nañ lu baax te ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñu nar a dox bés bu ngeen ñu joxee seen voix yi ba au soir du 23 janvier ñu gagné bu soobee yàlla yal naa ne sax dañuy gagné maak Madina te bu ñu gagné bu soobee yàlla fii lañuy ñuy dellu waxaat ak yéen gën leen dégluwaat ne leen de waxoon nañ fi lii waxoon nañ fi lii waaye bu soobee yàlla liñ leen digoon yépp ak liñu ñu yépp bu soobee yàlla nañ ko doxal ci biir Dakar may sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di wax ne fii tey ñu ngi fi ak suñu investi yi investi liste Dakar yi gis naa fii Ndeye Rosalie mi ngi fi Sophie Massali mi ngi fi Ibou Diame mi ngi fi l'ancien maire de la Patte d'Oie ah Sylvestre Boissy ci Mermoz Sacré-Cœur la bokk Lamine Tall ci commune bi lañ ko tànnee ah, Isabelle Dieng ci commune bi la dëkk kon suñu liste ville dugal nañ ci ñu bari waa Mermoz Sacré-Cœur Ah, pour won leen rek na ñun lu ñuy def dañuy ànd ak suñuy mbokk ak suñu jegewaale dugal leen ci pour ñu ànd mën a liggéeyal Dakar kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp gis naa mobilisation exceptionnelle bi sama mbokk jigéen ñi gis naa leen seen mbubb yi rafet na taaru ngeen ah danañ ànd ak suñu jàmm yi rek liggéeyal waaye kontaan bu soobee yàlla bu ñu yàlla mayee ndam kenn du mer fàttali nañ fi ni ñuy voté bulletin bi bulletin bu bleu bi nag na xool bu baax bulletin bu bleu bi dafa am bunt bi gis nga bunt bi yàllaa ñu ko ubbil surtout man mi nga xam ne bokk ma ci wan yàllaa ma ubbil bunt bi ma daal di ñëw nag jaar ci bunt bi ah pour liggéeyal waa Dakar

Yatel en 2022 Inch'Allah Dakar nous sommes 10 candidats ñu Wakam fi Djepel Koloban Mermoz Sacré-Cœur, Fassiené, taxawal buntu bi ndax dafa jot citoyen yi jëlaat li ñu moom dañu dénkaane woon dañu joxoon politiciens yi ñu téyel ñu ndax dañ ne mën nañu ñu jox leen ko topp seen ginnaaw di leen faxasal di leen puus bi ñu toogee gestu wuñu bi ñu toogee li ñu waxoon defuñu ko bi ñu toogee conseil municipal sax duñ fa toog ku dul toog conseil municipal nooy défendre sa commune conseil municipal du benn nit conseil municipal équipe la 2009 2014 ñi toog depuis 2014 ñu ngi toog ils sont 46 46 la ñu mu mel ni kenn moo fi nekk ana ñeneen ñi est-ce que lii la ñu waxante woon citoyen yi nee dañ leen yóbbu woon ci mairie bi pour ngeen défendre leen gisuñu seen bopp citoyen yi jóg nañu génn nañ seen kër ku ci nekk musoo politique waaye xam nga ne commune bi mu ngi dellu ginnaaw te commune yu Mermoz Sacré-Cœur commune de référence la woon du ñu nangu commune bi ñu koy continuer de dialogues on refuse L'Olotar, les habitants qui n'ont jamais fait de politique nous avons ñu gis ne mbir mi mënul continuer gënuñ nous jàng ñu Pastef nous ñu réseau nous ñu ñu baax na mission accomplie li ngeen mënoon def ngeen ko sen sen xam on vous félicite rendez le tablier